moo tax li ma am ak lu mënta am ci àdduna ay mbubu ministre rek man yenewuma dara man yenewuma dara suba boo sumee mbubu ministre bi tu trouveras le citoyen engagé man suba na ministre bi jeex bu jeexee ma dellu fii suma biir mbokk fii suma biir mbokk di toppatoo jàkka yi di ànd ak ASC yi di développer dëkk bi c'est dans la tête que ça se passe yàlla def nag Macky Sall yokk ci man lu baree baree baree bare moo tax ma wax li ma wax ci ouverture yi Macky Sall mu nekk président de la République ou mu bañ a nekk président de la République c'est mon seul leader parce que nit da ngay gore ñëpp xam nañ li ma nekkoon démb ak li ma nekk tey li ma mënoon démb ak li ma mën tey li ma mën tey Macky ko ci yokk kon nag kooku pour la vie je lui dois reconnaissance et admiration moo moo tax li yëpp ma koy wax pour l'histoire tey maag Aliou Sow ñoo bokk même gouvernement am solidarité ànd nekk mag ak rak di diisoo ci lépp di waxtaan ci lépp di def lépp ensemble lu ma dese ci àddina laa wax wax naa ko ci wilaan wilaan Aliou Sow kenn dootuma dégg man man mu jóge ci man ngeen di dégg maa ngi xiiroo ak ŋaayoo ak Aliou Sow ça c'est fini ça parce que mon garçon de 18 ans qui a le bac aujourd'hui porte son man ah dégg naa benn waaye mu ne doomam bi coow yi moo tax doomu amul bac man de coow yi am na waaye suma doom am na baag et c'est pourquoi je suis ma bëgg ma bëgg li may wax man nee naa leen man su ma weexee damay weex tàll su ma ñuulee ñuul gug ànd àndu nawle la ànd bi ma ànd ak yéen mooy àndu nawle bi may ànd ak Aliou Sow di ko ànd ak Abdoulaye Wilane di ko ànd ak responsable fi nekk àndu nawle waaye sama nit laa wax ku ne dangay ngay wuyoo Abdoulaye Sow jàpp ci Macky Sall bugguma nit buy indi seytaane ci diggante nit ñi je le dis de manière très claire je je ne suis dans aucune bataille man yàlla li ma may bu ko yemaloon fii sant naa ko ba pare moo tax ma bëgg qu'on engage la bataille du développement de la région c'est pourquoi muy man muy Aliou Sow Doudou Ka est fils de la région fils du département de Malem mënoon na ñëw li mu participer mais mu jox ko ay militants dafa yónne ñëw ba suma kër ne ma du du mën a ñëw joxal ma lii président Amadou mais c'est ça la continu la complémentarité c'est ça la solidarité ñëpp ñu ñuy bëgg a diviser di ma diviser ak Abdoulaye Wilane tous les jours ou dima di ma diviser Aliou Sow ou dima di ma diviser keneen intérêt bopp moo tax man bu dee njiitu bu dee jiitu xëccuwuma jiitu man musuma wax nit man maay seefu Benno Bokk Yaakaar ou bien man maay seefu APR moi je suis le serviteur des Kaffrinois il faut que les gens le comprennent ñu bàyyi histoire yi ndaw yi histoire yi ay li nañ tabax suñu dëkk dañoo fekk dëkk bu tardé région bu tardé région bu nga xam ni jafe-jafe emploi jafe-jafe infrastructure jafe-jafe yépp mu concentré wu ci région bi gouverneur xam na ci dara par CRD bu muy préciser problème kese lii problème yooyu nga am problème yu toll noonu ñu lay indi ci ay xuloo ay ŋaayoo yaay lii wii fii kenn du fi nekk kenn kenn du fi kenn yàlla rek ay dara alors moi je perdrai pas mon temps pour ça mais nag politique dafa parfois mu am animation mu am xumbel loolu ci la faut pas aussi occulter ça parfois gars yi dóorante tuuti ça mais les leaders doivent être au-dessus de cela et c'est ça que nous devons comprendre et c'est pourquoi Aliou et moi là Aliou mi toog nii ku yaakaar ni fii ak suñu bakkan yi jeex da ngeen déggati Aliou Sow ak Ablaye mu jamais de la vie parce on a perdu huit ans pour rien du tout. Ça ne lui a rien apporté, ça ne m'a rien apporté. toog nañu huit ans ku nekk jaar sa bopp indilu ko dara indilu ma dara bi ñu jubóoyee di ànd di diisoo mu féex ma féex kon lu ñu indi leneen Wilane nag moom moom suma mag la moom baal naa ko lépp moom bu ko neexee mu jël yat dóor le matin mais guddi danañu gisewaat day dóor le matin dóor ba mu bëgg a guddi ñu toog mu toog suma kër ou ma dem këram na continuer di dóor ay rakam la yor na dóor rek na dóor waaye man moom dóor defatuma dara nay dóor rek c'est man kenn dootuma dëgg ci loolu c'est fini moo tax ma bëgg yéen ñëpp ngeen taxaw ci loolu ñun ñëpp ñu juboo ànd nekk benn ànd nekk benn defaraat yi dëkk dëkk bi yemul rek ci Kaffrine